wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit ñi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di tàmbalee sunu kàddu ziyaara bàyyi sëriñ Xasan Seck xalif général Tidiane Canaba yàlla ko fi yàlla yàggal te ma ànd wér ak mbooleem njabootu maam Cheikh Canaba yëpp noo ngi bëgg a jël kàddu waaye kàddu gi kàddu fay taraanga lay doon ndax sunu mbokk sunu xarit sunu mag nee naa jarbaat la ci man bàyyi la ci man mbokk ko demee noonu maam amari mu bàyyi buubu yàlla na yàlla guddal aw fanam te may ko wér te programme bii di journée culturel bi yàlla na yàlla defal ko ci ay ndami ndami ndam troisième édition bii mu tuddee maam Daour léegi docteur mi ngi wax ni yée nanu gaynde waaye ren sëriñ Adama dafa ma dànkaw nee na ma programme ba ñu leen tudde woon kër sëñ mut li da nga ni woon gaynde ance nga bëggoon a indi waaye moitié nga indi woon waaye nee ma ren moom bul indi lu dul ance rek kon tabaarakallaa ku gis ñun ñëwee xam ne ance lañ indi mooy waa kër maam Daawur nii nga limee délégation bi wane na ni bu ñu sañoon duñ fa bàyyi kenn ndax képp ku fay chef de famille ñëw nga bokk ci délégation bi bàyyi Malick Diop mi toogoon fii bi mu jugee Baye Souleymane moo ko fi wut ndax doomam lañuy ñuy maye tey ci tàkkusaan bu mu jur ci ga waaye da koo bàyyi ñëw ci jataay bi kon wane na ni maam lii nga defal maamam ñor na ko te moom la Baye Maodo xalifa bi yabal defal nga waa kër maam Daawur lu rëy fii ci Cap nga xam ni bi ñu jugee ca dex ga ca duwe seen mission moo doon yeggali ji diine ji fii ci ndakaaru fii ci Cap ndax bi ñu yeggee ci lag tanma mu di dex ga ca mbijam keroog la seexu xuus dox mi ba yegg si fii ci ndakaaru wax ni diine da riima waaye booba cheikh calama bi mu àndal mu ngi ànd ak jarbaatam jooj ñu dara jaale lii muy Mame Daoud Diop maam Daawur yàlla na tuuti rek ñu tënk ci moom lu tax ñu war koo tudde bis bi te yelloo na ko ndax liggéeyal na maam Amari Ndaag liggéey boo xam ni maam Amari Ndaag gërëm na ko ci pénc daa julli suba ba noppi daat ni rakkam buubu sekk buubu de waaye yàlla wan na ma Daawur Jóob mu ñu ne woon faatu na yàlla wan na ma ko ci fajar waaye wan na ma sax ba baaraamu dëy ba mu gaañu da caa laxa sagar te bu ñëwé dina ko indal yaay sama seede Mam umar ndag mo am kashfu Mam dawur bobu ma nga nekkon Kër Matar xali Kër Matar nda ci ñu ci wawan yenu bagage yi ya ba bëgg dugg ci dëkk bi ma umar ndag yëg ni mam dawur nga dugg si mu ne mbolo mi togal jug leen nu dawur ndax kër gi kat damay bàcc ñu jappé ko kërum jibar ndax bagage yi mu yenu juroom ñaari ponk la ko waré yenu te mom rek ko ko yenu dem leen ci ngeen dugal ko ci biir dëkk bi kooku xam nga ni jàmbaar la wax naa ci njàmbaaram keroog bi mu yegsee ba maam Amari Ndaak ni ko daawul xanaa sonn nga lan la ko tontu mooy sonn ma xiifu ma tàyyiwu ma sëriñ Juga xam nga lal la maam daawur tontu mooy ñàkk laa gis moo ma sonal kon li dox ci diggante sëriñ ak taalibeem doxoon na ci maam daawur ak ki nga xam ni mooy nijaayam di maam Amari Ndaak kon buñ ko tuddé bis bi koku yalla na waye kéro bi mu indé bagage ba nopi jébbal ko nijaayam nijaayam da tek loxom ci bopam mu joy joy met mu ne ko dawur ni nga samé sama bagage bamu ba mu ñong yalla yalla samé nonu yalla sa njaboot yalla na yalla samé nonu noonu na yalla yàlla sàmmee naa ndax luy teranga ci aduna yalla defal nak ak njabotam nee cër yamu mu ndax ba muy wuy ji cheikhou mam dawur waron na ci force espace yi ñu wara rangager waaye maam Amari Ndaak dañu ko déedéet loolu du sa cër yow xeexal diine mooy sa cër waaye la mu geddoon yàlla fay na ko ndax ku xool la général Mor Seck moo jur maamam dem ba mu takk gratu général ci sapeur pompier kon la mu doon gedd ci àdduna yàlla fay na ko waaye di atte ay pénc ku xool le médiateur monsieur Serigne Diop fii ci digg Ndakaaru ak Sénégal monsieur Idrissa Seck sax nee na jéggi na Sénégal ku la lampour sax boo fa demee Serigne la dàq jàng li muy atte ci ci waru constitution kenn mënu koo atte kenn mënu koo dindi kooku surtout maam Daawur la kon la mu geddoon ci àdduna yàlla fay na ko kooku kon buñ ko rendre grâce yow sëriñ maam Amary yàlla na yàlla fay la ku bëgg maam Amary Ndaga ngi benn témoignage rek laay def keroog bi ñuy dafa tabe tabaxee xabru maam Amary Ndaag bi ba mu yegg ci ñu war koo taaral ma ñëw wax ko ko ni ko looy defal sa turandoo mu ne man xam naa lu may defal sama turandoo lamp keroog bi ma woowee ñu dem Sandaga ñi gën a rafet ay làmp ci biir senegal maam Amari fekk lamp boo xam ne un million lay jar mu ne ma làmp bii laa jënd sama turandoo ma ne maam lamp bi daa cher ne ma wax ma wool ma koy jaay waaye li ci gën a yéeme sa njuga bi ñu woowee ki koy jaay waa ji daan ni ko Muhammad wuyul ñi maam ni ko bi lu muy jàpp mu ne ko un million maam génn cash fay ni ko sama turandoo sama sëriñ laa koy jëndal mu ne Cheikh Tiyam Chérif yow yaay monter lamp man ma daan lamp bo xamni ni yonent koy jaay Cheikh Tiyam mo koy monter ma mari ndaa ko ko jëndal ma daru ci sax maniko lepp matna waye li ci gëna a moy ci kaw lamp ba dañ ca bind la lumière du Sénégal etiquette bank ma dañ ci ba légui la lumière du Sénégal xam leen ki ngeen am Seydil Mujahid ma mari ndaak kenn du moom liggéeyal na réew mi loo xam ni bu ko ñëpp delloo woon njukkal wallahi àdduna ak alaxira dina baax fii ci ndakaaru nga tàntal fii sa maam bëgg a wane maam amari ndaak rek la moo tax nga def ko kon yàlla yàlla fay la maam amari Baye Assane Seck yàlla sa toogaay bi yàgg oh, yàlla na yàlla fay la lii ñu tuddee maam Daawur damaa njàmbaas loolu rek waaye teraanga ji Baye Souley moo ko yor yal yalla fayal nuko mi ngi ànd ak sunu baay yu bax yele lim nga len legi damay bañ a tënk temps bi waaye mënoon naa xuus ci maam Daoud ndax sulayman Gueye mi yor programme bi dani ma yeen wa keur mam Daoud na ngeen teunk na ngeen teunk sen kàddu ndax pare yi dañuy teunk sen kàddu manako kenn duñu teunk ñun wa lañ kenn duñu teunk ñu bis bi bis bi kon day sante kon nak teranga jojo ci dess jox suñu sulayman job mom la ko malik deng ñu ngi jéggalu ñëpp ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi bi nihmati tatimu salihat ñuy wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sunu sëriñ Baye Assane Seck di xalifatu saranal tiijaan bu ba ak mbooleem njabootam yi mu jaboote ñu sant Seck ak ñu santul xam naa ni ma yëkkati kàddu yi fii ci jataay bi lu xaw a metti la lu xaw a tiis la ndax sama kilifa laa fi wutu muy sëñ Malick Diop moom lañ yaakaaroon mu yëkkati kàddu yi far moom it rendu bi mu xam ne moom la digge woon jot muy maye doomam ñu jox ma kàddu gi Baye Assane suñu kilifa sa njaboot sëriñ Maodo jóg di xalifa Maam Dawur Diop mi ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ndax lépp yaa ko moom mi ngi lay wax ni bis bii bu sañoon dafay teew waaye kenn ku ne xam na ni dañoo jóge gamu xaban yaramam xaw a sutante mu yebal njaboot gi ñu ñëw mi ngi lay wax ni fee mu nekk ci Thiénaba xabbaan ca tund wa ak la ko wër lépp yow la fa nekkal euh, di sa taalibe di sa njaboot ak mboolem ku mu jaboote nee na mi ngi lay ñaanal ndam ci liggéey bi nga xamee ni yaa fi wuutu mag ñi nga xamee ni ñoo kon say wayjur nga ñëw jël seen palaas yor xilaafa gi nee mi ngi ñaan bépp ndam bu sama ngi masa am ak say papa yàlla na yàlla defal ndam lu ëpp loolu ndax yàlla mën na lu ne waaye nee na mi ngi lay ñaanal jàmm ci sa njaboot ak ci diina ji ndax njaboot jàmm rek moo ko jig kon nee na mi lay ñaan yal na yàlla defal la jàmm ci sa biir njaboot tamu sax ci ba lépp loo sumb ñu yëkkantandoo di dóorandoo loolu mooy kàddu sëñ Maodo di la ndokkeel tam nee na ci gàmmu xabaan gi nga xamee ni bu ko taxawalee ci ndigalu sëriñ Cene ba lañ ko taxawal muy Baye Alpha du Seck jaar ci xalifa yi fi jaar ba mu ragalaat ci sa loxo nee na lu ñu fa def rek ci wàllu diine yow la ko defal nee na mi ngi la cay ndax bis boobu sa bis la sañ njaboot gi nga xam ne yabaloon yabaloon ngi fa ñëw nañ fa teew fa ànd lépp loo xam ne teraanga la andil ko waa Thiénaba xabaan te mooy seeni jëmm ak bi leen yàlla dénk te loolu rek muy diine nee na mi lay sant bu baax di la gërëm Maodo nag ay kàddoom maanaam bu guddee rek maa guddal la des nag mooy nee na mi ngi gërëm maam amri mii nga xamee ni moom lañ duppee maamam gis ngeen àdduna ñun jullit yi war nañ ko xoolaat bu baax ndax alal du wëy fi lañ koy bàyyi kër gu rafet fi lañ koy bàyyi oto bu rafet fi lañ koy bàyyi bu doon ne alal rek la maamari xool du jël bis bi di waxtu de maam Daawur Jóob waaye dafa xool cosaan te Samba Sadio métti woon na ba fa maam Daoud di di ànd ak maam Ahmadou Ndak 21 ans la am ñaar fukki at ak benn xare bi commencé mu am ñaar fukki ak juróom ànd moom ba xare bi jeex première maam Ahmadou Ndak deuxième maam Daoud première maam Ahmadou Ndak deuxième maam Daoud loolu la yàlla def ndax wóolu gu ko maam bu ko bu wóolu woon ki lay jox say bagage dénk loxo muy bagage yi secret dara manqué wul nga indiwaat ko. ba teg ko ci loxoom kooku wóolu mënu ko ñàkk euh, maanaam kóolute mënu ko paase. kon loolu ñu ngi ci gërëm bu baax ma amul ndag lépp lu maam Daawuda am donte ndijaayam moom la àndal di xare bi ànd moom ci liggéey bi ñun ñëpp xam nañu ne maam Ahmadou Ndak moo ko ci maam Daawuda te njabootam gépp nañ ko lépp lu njabootu maam Daawuda am ci diine ji maam Ahmadou Ndak moo moo tax ñu am ko ndax suñu maam la àndaloon tey dañ dañ ko nangu te maam Daawur nangu na ko te njabootam nangu nañ ko maam Amari ñu ngi lay gërëm bu baax di sant di la ñaanal rek yàlla la la cat ndax xale nga te lii du caaxaan am na ñu lu jiit woon fii ci fii ci fii ci Dakar te taxawuluñu lii. àdduna du ay wax jëf la ak nangoo liggéey bu nu bëggee nag jariñu fu ñu suppeeku liggéey ndax loo góor loolu la góor gi santaane kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla dafa la jàmm. fa famille maam Daoud kontaan nañ ba fa kontaan mën a yem am na fu mu commencé mais amul fu mu yem dangaa baax bay buub mi sa mi lay meññi baax ñun bi suñu papa génne àddina 2000 ba fii ñuy wax ak yow bay buub mooy suñu papa ci fa ñu nekk ca quartier ba lépp moo ñu ci taxaw julli it mooy dëkk ñëw sama kër seet sama balaa may dem te loolu dafa mel ne yow si jëmmi bopp loolu itam loolu ngay dund ñu ngi lay ñaanal di ñaanal say yaay yi soxna abu euh, euh, saar yàlla may ko wér muy soxna su baax gis nga jigéen ju baax mooy meññ njaboot gu baax jigéen ñi na ngeen góorgóorlu ci diina ji nangoo jaamu yàlla déggal seeni jëkkër te jub te doylu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bàjjan Awa Jóob di njabootu maam dawru mu des ci li nga xamee ni mën na ñoo wax ni ci deretu Samba Sadio moo fi des mu judd 1937 ane boobu ci la sama maam dawur génn àddina moom la fi maam dawur bàyyi moom la fi deret sambo Sadio bàyyi mi ngi lay nuyu yow maam Amari di la wax ni la bis bii nga tudde papaam lu rëy la ci moom li muy tële tële su ko mënoon mooy teew fii li mu nekk nekk jigéen ndax bañ ko jëkkee tudde ca péncum Thiénaba te ki bàyyi Mouhamadou li Seck dafa diree ko ñëw ba ci foofa toogoo yéen sargal leen ñaanal leen yàlla mi ngi leen di gërëm di leen sant maa amari loo man ren bu déwén yàlla nga mën du ko raw di ñaanal askanu cekke ne askanu njóobeen yëpp ak taalibe yëpp yàlla boole ñu ngërëm boole ñu xéewal boole ñu sutura ba déwén kenn ko ci nekk boo fi ñëw yokk beeg ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ah <laughs> hoppulaw hoppulaw est-ce que jërëjëf euh, Serigne Souleymane papa da defe naa indi nañ gaynde entier de moom waaw kay Serigne Adama nee bàyyi sëriñ indi ngeen gaynde ance macha allah yal na yàlla teral kon teraanga ji mu ngi jóge ci njabootu mam Daawur Diop mi nga xam moom lañ tudde bis bi jëm ci loxoy sëriñ maam Amari Seck euh, su ko defee kon dañuy daal di wéyal rek ci ràmbal euh, bismillah su ko defee njabootu mam isaa Diagne waaw ñaari minute rek bu ko defee ñu kii ko rek xaw ko tënk noonu rek mu gaaw tuuti ndax defe naa ni gis gi nu gis sunu kilifa gi doy na nu sëkk bànneexi wax te wax dëgg yàlla bu fi ñëwuloo nit kum fi yónni day taaral bis bi far nag mu jógal boppam ñëwal boppam dëgg-dëgg bay asan yaa baax yàlla nga fi yàgg bismillah sang bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nuyo bi nu commencé que si sang bi bay Assane Seck yal fi yàgg lool te ak wér lépp lu mu naal si diina ji yal na ko yàlla kàttanal ba mu àgg ku ko nal gàllankoor yal la yàlla gàllankoor ñoo ngi nga gërëm nuyu baay buubu sekk bay buubu li nit ñi wax yépp looloo nekk ci moom ku Sëriñ Maamadu wóolu woon daan ko yebal ci daayira yi ñun miraax ren Sëriñ Maamadu yebal na ko ci nun mu nekkoon góor gu gore am orm yal yàlla gën guddal fanam waaye maam amarin maam amari ku am kóllëre la kuy fàttaliku démb moom imaam góora du ñoom la ñoo nekkoon baabu salaam bu nu mosee di réunion foofu teraanga yoon daan séq ak ñoom ba seen ñu jonn yàlla tey fu nu daje nu feeñal ko ba tey rek bàyyi maam amari feeñal na ko fii kon loolu ay sàjjan gépp góor ak jigéen rendre hommage bi nu rendre Baye Issa nag du moom rek nan ko ràndal taalibu Dakar yëpp nan ko rendal deuxième édition mi ngi nii première édition Pape Mor Gueye moo ko defaloon ci Thiénaba Baye Issa nekk nit ku exemplaire nit ku toy uuf ñëpp boot ñëpp waaye it bàyyi fi ay doomam yu nga xam jël nañu relève bi ñun daanu wax ni bare na Dakar ay mu xaddam yi fi newoon bu fa daayira ba cere ba demee nun ñoo def service ren dem former fa daayira may leen daayira bi mais seen doom kenn gisatu leen waaye ñoom zéro faute bu bàyyee saa di woon tey kenn kenn du bougé fi nga toog ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen sant Ibrahima jël bàyyee saa ba mu jeex tàkk mook rakkam yépp ormi bi bàyyee saa amoon na ñu ñëw delloonu ko ndax ñun dool na jamono ba xam ne ñooy tànk ko Baye ñoo ko daan doxal ñoo ko daan waxal boobu Ibrahima ma nga sa àll ba kon lépp di rafet ba seen jot yàlla tey lii nag xeeb nañu ko ñoo ko barkeloo ci bis bi Baye Assane daal ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla na fi yàlla gën yàggal fi ànd ak wér asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kaddu gi tedd na lool macha allah teraa nga jët rëy na yal na yàlla fay te barkeel la fa des euh, su ko defee enveloppe bii ma yor mi ngi jóge ci njabootu Baye Gora Sarr defe naa ni ki ma ko jox léegi dafa wax nii ñoom euh, kàddu yi ñi ko fi jël ñëpp dañoo leen ko jëlaaleel Baye Gora na mu daan dunde mooy rek képp koo xam ni yaa ngi yëngu ci yoonu cana ba soo ne bërit moom day ànd ak yow mba boo ne tekk mu ni nga andak ak kon and na ci kaddu fi am yeb teranga ji kon mi ngi jóge ci njabootug Baye Gora sar bismillah Cheikh souleyman mu yegg fi mu wara yegg yakarna kon lolu mo fi doron ci ay kaddu ah su ko euh coordinateur euh, Serigne Ibrahima Sow ci ñaari minute rek nga fàttali sang bi tok lan mo waralon ñu yëkkati bisi ak it lu ko tax a jóg ak fan la jëm su ko defee ñu ñaan la rek ah, yow nag yaay ki nga xam ni bu nit naree saaraan tuuti ci kàddu nga taxaw ni ko nii tey nag dama bëgg nga ni sa bopp nii waaw kay deux minutes laa la may waaye del wax sa bopp nii bismillah mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu xalif général bay Assane sek yal na fi yàgg te wér bay Assane journée culturelle la ngi nii lu tax journée culturelle Diop mooy taxawal kàddu Thiénaba fii ci péncum Dakar mooy taxawal say ndigal ak say kàddu fii ci pencum Dakar Baye Assane li tax journée culturelle maam Amary Ndak ibnu Baye boobu taxawal ko amu ci menn objectif wuti ci alal wuti ci dayu wuti ci bayre benn objectif képp la jox journée culturel mooy fexe ba kàddug maamam di maam Amary Ndak Seck jib ñu xam valeur yi ba lambo ñu xam message yi ba lambo ñu vulgariser ko fii ci Ndakaaru muy capital bi mu wasaare wu ci Sénégal ak ci àdduna journée culturelle Baye Assane amul beneen objectif woowuñu ay parrain politicien woowuñu ay parrain homme d'affaires woowuñu ay parrain yeneen lu ñi sës rek ci maam Ahmadou Ndak Seck ñoom dong mooy suñuy parrain kon bay asan journée culturelle lo ci bëgg def sa kàddu lay dépendre sa journée culturelle la sa ndigal lañuy dox say waaw lañuy ñuy boo ñu ne na fi yem ci troisième édition bii dootuñu yëkkati journée culturelle ndigal loolu dama maam Amari waxoon ma àggale ko di remercier équipe bi liggéey ci journée culturelle bi yépp nag lim ku ci nekk xam na boppam équipe la koo xam ne ni ku ci nekk fi nga taxaw yaa gën a bëgg maam journée culturelle ndax rek ndamu cene ba waaye li ñu may doole nag équipe boobu mooy maam Amary Seck ibnu Baye Boubou kan mooy maam Amary Seck ibnu Baye Boubou maam koñ bii la jànge maam ba mu génnee bitim réew dem sàkku xam-xam gis ni la nekk bitim réew li nekk fii ko ko gënal la sàkk foofa xam-xam tibb ca la mu ca war a tibb ñibbisi si fii dellu ca daaray maam yi sàkku ngërëmu maam yi kooku maam ama mooy maam amari ndaak sàkk dina bàyyi buubu mu mu jànge fii ci koñ bii fii la yalwaane yor pot dugg ci kër yi yalwaan pour lekk reer tey jii mu taxawaat fii woote nit ñi wuy si ko dafa rafetal moo tax kon maam jàng dafa mu war a jànge dellusi na fii ci Sénégal tarbiyu na maam yi ba xalifa général jëne ba suñu bàyyi maam Cheikh Tidiane Seck yal na yokku taxaw fii jébbal ko xadd mu xàddamal ko tey ji sëñ Assane Seck ñëw fii dëggalaat loolu kon maam yaa ngi ci yoon wi kooku may maam Amary Seck Baye Assane foofu lay terminer parce que sëñ bi deux minutes la ma may di la di la bégal ni am na bu ñu bare xam nañ maam ay mbokk ma ngi fi nijaayam mu ngi fii di kilifaam waaye man de yàgg na ak maam parce que yaakaar naa maam bi ma koy xam booba mu ngi yalwaan kon ba may xam maam daan kii mooy sama sëriñ dañ ma doon reetaan kon xam naa maam kon maam moomu nag ak maam mii benn maam mi la mooy cene ba la gëm cheikhu cene ba la gëm maam amri ndaag la gëm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa salaam maangi nuyo di ziyara di jégglu kaddu yi te di leen jéggal nuyo bi maa ngi ciy jiital sunu wayjur bàyyi sëriñ asan sek ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaara eh, di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan yéene ji mu am nga xam ni yéene yooyu moo doonoon yéeney bàyyam ak yéeney magam yi mu wuutu yépp yal na yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm ba àggale yéeney boppam bàyyi sëriñ bi ñoo ngi la koy ñaanal yal na yàlla defal la ko yal na yàlla sàmm la di nuyu sunu wayjur bàyyi sëriñ buubu sekk ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare li ñuy ñaanal bàyyi asan moom lañ koy ñaanal ndax sunu wayjur la sunu xarit la sunu lépp la muy nit ku baax bay buubu yal na yàlla dolli la wér yàlla sàmm la di nuyu sunu wayjur soxna Abu Sarr ñoo ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan sunu wayjur la sunu xarit la ndax lii may wax lu lu wér la ñépp mën nañ koo seede ba ñu bari mën nañ koo seede yaa abu moo ñu yar ñun ñii ñépp moo ñu yar moo ñu tette moo ñu dimbali ci lu bari xam loo ñu sunu bopp ndax suñ musaana toog di waxtaan bu déggee ñu wax naka su noonu mu ñëw teggaat ñu ci yoon kon yaa abu ñoo ngi koy ñaanal yàlla wér ak gudd fan yàlla yàlla barke di nuyu njabootam yëpp soxna Penda ak soxna Ndey ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu soxna maam Kumba ak ñiñ ko bokkal ñëpp maa ngi nuyu mboolem ku teew fii ñii sant sekk ñëpp maa ngi leen di nuyu ñii samay mag la ñii samay rakk la ñii samay doom maa ngi leen nuyu maa ngi leen di ziyaara di nuyu taalibe yi di nuyu muqaddam yi surtout taalibe yi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci ndakaaru maa ngi leen di nuyu ndax bis bi ñoom ñoo ko moom maa ngi leen di jaajëfal bu baax di sant nag man sama cantu bopp goo nga xam ne man mii maa ko ameel maam amari maam amari ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm ndax yàlla dañoo boole ba ñuy tuut tànk ba léegi ñun ñi ñooy ànd ñu doon neuf personnes yoo nga xam ne ñooy ànd maam amari ngi fi euh, Souleymane Gueye Serigne Bamba Saliou Alpha Ibrahima Diagne sëñ Mamor Seck ak sëñ Bamba Modou Fall ñun ñi yàlla moo ñu boole muy àndu ñuy àndu démb fu maamari nekk fekk nañ ko fa ñun ñii nag fuñ mos a nekkin maamari fekk nañ fa te yàlla def na kenn musuñoo dégg kenn musuñoo fekk ci loo xam ne nii lislaam xeeb na ko ngor xeeb na ko diine xeeb na ko kon ñoo ngi ñun suñ ànd boobu ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla sàmmal ñu ko Maamari ñoo ngi lay sant bu baax ndax lii yiw yii yaa ñu ko fàggul kon ñoo ngi lay sant di la gërëm ñoo yow ñoo ko ànd lii may wax nag àndu démb ñëpp ñoo ko wax ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla gën laa jàppale yàlla yàlla taxawu la yàlla yàlla sàmm la beneen bi ci desin ma koy wax muy rendre hommage bi ngay defal Baye Serigne Abdourahim tey jii yàlla def na ku Baye Abdourahim yoreloon bor man jàpp naa ni man maa ko war a fay moom mi man jàpp naa ni ku ku ko yoreel borin man mii nga ko war a fay kon lii nga defal Baay Abdourahim man mii nga ko defal ndax yàlla def na man maa nekk ci boppu njaboot gi waaye sunu jur wii nga ko defal bàyyi Sëriñ Asan moom nga ko defal defal ko njabootu Baay Abdourahim ñëpp njabootu Baay Abdourahim ñëpp ñëw nañu ñëw nañ ànd ceeg yow di la ci sant di la ci gërëm di la ci ñaana yàlla ndax tamit kilifa boo ko amee muy kilifa gu baax yàlla dimbali la ba nga xam ni moom ku baax la bari na looy def ca moom barke la lay jox muy Baye Abdourahim lii nga koy rendre hommage barke la lay jox ndimbal la lay jox ndax ku yàlla baaxal lu waay laal ci mbiram sa mbir baax loolu képp ku yàlla baaxal muy ku mënti doon boo laalee ca mbiram sa mbir baax kon maama mari yal na yàlla gën a baaxal say mbir njabootu Baye Abdourahim sant nañ la gërëm nañ la ñaanal nañ la yàlla ñoo ngi lay sant bu baax bis bii man toll na ci man noo nga xam ni dafa rëy ndax li tax ma ni dafa rëy ci man heure bii démb maa nga wuramaadi yi bàyyi sëriñ bii yónni ma fa te wuramaadi yoo fii du du du caaxaan volontaire ba ma def ba ñëw teew si bis bi loo ma lebal la moom laa lay jéem a fay moo tax fu ma mënti nekk man ma nekk fu ma mënti nekkit sa bis dinaa ñëw def ci sama kemtulaayu kartan waaw ndax fi ne nii euh, euh, yàlla moo ñu boole boole ñu ay tiraanga kon faw ñuy fayante njekk yi ak di waxante njekk yi loolu moo tax ma sabablu yàlla dimbali ma ma ñëw waaye bu dee sonn rek def naa ku demoon Wuro Maadi yu bërki démb tey jii euh, bi ci bi may julli timis daanaka laa déparé Wuro Maadi yu ma ñëw fii te ñëwaat yendu si fii mbir mi nu mu toll ci man la kon maa mari maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay gërëm maa ngi ñaanal ñëpp bàyyi sëriñ bi ñoo ngi lay sant waaye maa ngi lay santaan nag cant goo nga xam ne sama cantu bopp la muy cant goo nga xam ne nii cantu waa Wuro yu la ndaxit nit boo ko dee yónni ca cib néeg yónni ca boroom ci biir néeg bi kooku day day day leeral day euh, lu bari waaye ba nga ba nga ma jëlee yónni ma Wuro Madiyu kon da jël min ka ilayka da ngaa jëlaat ci biir delloowaat ci biir kon waa Wuro Madiyu ñoom sant nañ la gërëm nañ la man mii sant naa la gërëm naa la maa ngi lay ñaanal yàlla yal yàlla gën laa taxaw euh, maa ngi guddal sax waaye nag euh, maa ngi sant bu baax daal maa ngi jéggulu ñëpp kàddu yi gudd na sax ndax ni mu demee moom ñëpp xam nañ waaye lii nag moom euh, njabootu Baye Abdourahim ma nekk ca bopp ma ñoom ñoo ko jël barkeeloo ko di ñaanal maamari yàlla na yàlla gën koo taxaw ñu ngi nuyu suñuy doomi baay waa Njóobeen ñoo ngi leen waa kër maam Daawur ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara boobu lii bis bii ñu leen joxit mérito nañ ko ndax maam Daawur maam maa jooja ñooñu seen taxawaay rafet na jàppale woon nañ seen ndijaay ba tey ñun ñii ñëpp ñu ci bànneexu yàlla na yàlla gën leen a taxaw maa ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bu Baye Abdourahim doon jël kàddu gi nga xam ni Eh, dañ ci rendre hommage way juróom wu tedd bay Serigne Abdourahim waaye dégg ngeen ko laafaale na ci kon mooy la wolof naan lu yàgg dëgg la la yàgg tey dëgg nag yàlla na fekk muy dëgg itam macha allah Serigne Ibrahima kon ñu jéggaluwaat tuuti rek xam ni mbir moom ni muy la eh, sunu kilifa ki nga xam ne di Serigne Mam xaali Fall eh, ñu ñaan ko mu ñëw rek moom itam ñaari minute te mu jéggal ñu lool ndax sunu yaay sunu maam soxna Binta Fall bu fi nekkoon tey ñu koy rendre hommage ni mu dundee ak sëriñ maam Amari boot ko ci teraangay diine ji du taxaw fii mukk di jël kàddu ndax day soxna loolu nag la njabootam gi respecté ba jël seen kàddu jox ko seen nijaay sëriñ maam Xalifaal bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di ci jiital uh, sunu kilifa gi di sunu sëriñ di sunu lépp di sëriñ Asan di ci teg maam Amari Ndak Seck maam Amari nag moom ñun ñi sant Faal ak ñi sant ba mënuñu koo fay dañ koy ñaanal yàlla rek mu yàgg fi te ànd ak wér laa koy wax bis bu ne bu nu gisee ma ne ko di ni ñaanal sang bu tedd bi rek laa lay ñaanal yàgg fi te ànd ak ndax la ñu xale waxoon suñ fàllu ni ko yàlla na nga fi yàgg mu ni xale yi loolu muy gën ci yéen waaye maam Amady Ndaak yàggam muy gën ci noonu ñu ngi koy gërëm di ko sant. wax ji nag ndax sant gërëm rek la sant ko yàlla mi am fa yàlla na ko fayal maa ngi wax ci turu nag ñi sant Fall ak ñi sant ba ñëpp maam Amady daal moom mënu ko fa mi am fa yàlla ko fayal jërëjëf. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp di jiital ci nuyo bi bay sëriñ Xasan Seck xalif généralu ba di ko nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal di sàkku ci moom ñaan di nuyu muxaddamam bi fi teew yépp di nuyu taalibe yi di nuyu représentant bi fi représentant bi fi nekk te nekkal ko fii ci ndakaaru di nuyu nag njabootu maam Ahmadou Ndaak sekk yëpp fa tabarakallahu waaye di nuyu sëriñ maam Amari sekk suñu jarbaat di ko nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ni ñooy ay xaritam te di ko jàppale ci liggéey bi di nuyu tàggkati yonent bi sallallahu alayhi wa yi fi nekk ak zikkarkat yi fi nekk di santaat yàlla bu baax di nuyu sunu njaboot yi fi nekk soxna maam Kumba ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu baay buubu di ko yóbbante ci soxna Abu Sarr yàlla dafa dogal baay sëriñ Xasan euh, euh, yàlla def na ñu ngi fi woon sànq di déglu waxtaankat yi fi nekkoon dafa mel ni waxtaan yi ñu fi dégg yépp baay aas ñu ngi doon waxtaan ci wàllu jàmm ci sama dégg-dégg ñépp ci jàmm lañ doon wax wante kon bés bi nuru na boroom ndax yàllaa ngi dogal maam Amari sekk mu bàyyi buubu defe naa ni ñun ñëpp buñ ko seedeelee mën nañoo seede ni bàyyi euh, maam Amari kenn mësu koo àtte ak kenn maam Amari kenn mësu koo dégg ci loxoor maam Amari kenn déggu mësu koo dégg ci luñ koy jàjjee waaye nag loolu yell na jekk na jaadu na ndax ñaar yi ko séq ndax ku nekk xam na ni maam Amari Seck wax nañ léegi ci kennam googu fan la jóge ba ci maam Amari Ndaak Seck kon dafa mel ni wax nañ fi ni euh, caatu maam Amari Ndaak Seck fa tabaarakallaahu moo jur baay buubu mu jur maam Amari loolu genn wàll la bu doon genn wàll googu rek poids bu maam Amari am war na ko cee mën a am waaye dafa amaat beneen poids bu ànd ak moom ndax sëtu tafsir Mamoor Gueye la Mamoor moo jur soxna màgget Gueye mu jur soxna abu Sarr mu jur euh, mam Amari Ndaak Seck te ku nekk xam na ni góor googu di tafsir moor ku nekk xam na jalooreem ci jàng doy na rek ñu mun a wax ni ñaari nit yu am xam-xam ñooñu ku ñu cautionné sa xam-xam am nga xam-xam kenn ki mooy mu rasul Serigne Touba ndax sa maam ba mu jàkkaarlook moom ni ko sif ardana tabaqan wa naasu hum kuusu bambal baradu lladi yusqa bihi l kuusu sëñ bàmba da ko ne xanaa morgue ba nga juddoo ba léegi jàng rek ngay def kon loolu kooku sëñ bàmba cautionné na sa xam-xamu maam fa tabarakallah ba mu jàkkaarloo ak Seydi Haaji Malik ba mu ko waxee ni ko lil waari diina tiwaawoon daara tijaani manahilul ilmi wal irfaani fuljaani دار سمعت دوي الخوف ذاكرة كالنيل قد هيجت الشوب من جانب قصيدة بأق بمو أق لخصيدة بي سيد الحاج مالك لفكسين معرفة مام سمام تفسير مور داخل دفني كوفي نك نانغا موك القصيدة بي داخل تدن غور يالا لجوغي نغي سرغل نك دومو كوكو دي تفسير دي كوباخ دي سرين الله جي تالي دي سن واجو دي سمام فتبارك الله الله تعالى نك كوكو خمون xam nga addunaam yépp dafa ko jeexal ci kër Cheikh Thiénaba wax na ma ci làmmiñu boppam ni ma sëriñ Ibrahima Seck bi muy jël xilaafa gi ñu nekkoon sama nattango ci commerce mooy Njuga Kebe Njuga Kebe ak Jili Mbay ak Alaaji Mandela Fall booba ñoom laa bokkal même niveau ci commerce si Ibrahima Seck jël xilaafa rapproché ko woo ko ni ko na ñëw nga jàppale ma ci xilaafa gi mu bàyyi li mu nekkoon lépp ñëw jàppale sëriñ Ibrahima sekk ñaar fukki at ak juróom-ñaar ànd ak moom di ko jàppale wax ma ni ma sëriñ moor te booba mi ngi nuy jàngal mu ne ma sëriñ moor ma ne ma ak serigne ibrahima sek ñaar fukki at ak juroom ñaar andu mo won ak mom utalu ko dara utalu won sama bop dara du won pour lu mu am du won pour lu ma am maniko ko lu taxone munima lu lu sel lu setal deram rek kilifa koy and ak mom dang koy fotal deram diko rafetal sa euh, sa mam mom ngay ngay ngay yekati tay li li gën tay li gën yëngal jamono muy souf li ko gën a yëngal teewe naa dafa bokkoon aw dig ak ak góor gu ñuy wax euh, euh, bàyyi góor gi caw ca ca ca xay bàyyi alaaji caw ñoo bokkoon benn dikk mais loolu dafa am solo parce que mag ñi xat na sax waaye foofu laa koy yemale dama doon xam bu ñu buubee ñax mi ba ñëw teg ko ci ci digg wi bàyyi alaaj jaw buub ñaxam teg ko ci digg wi sunu papa daf ñu naan xëcc leen xëcc leen ñax mi mu ñëw lu mat cinquante centimètres pour que dig wi bu ci amee luy rëcc lay rëcc na féete ak Baye Alaaj Thiaw bu asamaan setee bu nu xëyee bu nu ñëwee dañuy fekk Baye Alaaj caw xëccaat lanu xëccoon moom itam ba mu dugg wàllam mag ñi noonu lañ meloon ci moytu wax naa barki démb ci benn tudd cana ba ma kër sëriñ Alpha Mamadou la sama papa séqal benn sàkket bàyyi Alpha Mamadou mais mag ñi ci moytonte ak séddante ci la ñu jeexal seen àdduna yépp bàyyi Alpha kër gu nekk ñeenti koñ la bàyyi Alpha da daan sàkket kanamam sàkket côté bi féete ak kër sëñ Ibrahima sàkket ca ginnaaw suñu diggante mu bàyyi ko sama yi noonu la daan def suñu diggante yi ay xer rek moo fa mu jondi am foo jaar jàll xam nga lu taxoon duñ ko sàkket kenn ku nekk ci ñoom moytu woon nga sàkket ko sa moroom ni man maa tax mu fatt ko mag ñi cër yooyu lañ doon joxante nan ko delloo siwaat su ko defee dañuy am lépp suñ ko delloosee dañuy am jàmm suñ ko delloosee kenn dootu ñàkk dara lii mooy message bi nga xam ni moo tax ñuy tudde mag ñi mag ñi mag mu ñu tudde war nañoo dellu siwaat ci moom wax lam nu jàngal fa tabaarakallaahu nu jariñ xale yi jariñoo ko noo ngi jéggulu ñëpp Baye Assou noo ngi lay jégalu soo toogee warunoo wax dara ndax ñun dañ laa bëgg dan laa ñeewante dan lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal saw fan guddal fanu képp koo xam ne àndal nga moom fa tabaarakallah sëriñ Ndiame nee na may na ma junni may nga ma nag lu ma bëgg Ndiame wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billahi al azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci suñu nuyoo bi suñu kilifa bàyyi sëñ Xasan Seck di ko ñaanal jàmm ak salaam ak wér gu sax dàkk di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn ah kàddu gi nag kàddu ndigal la mu bàyyeekoo ci sëriñ Mouhamadou Seck di xalifa Baye ci Ahmed Tidiane Seck wàcc ci sëñ Gora jaar ci Baye Talla Seck waaye noonu lañ ko bokkee ak jigéen ñi soxna na koy ñoom yaanooy sekk soxna ndey ami ak ñi ñu ko bokkal ñépp ñu jël seen kàddu jox ma ko ni ma naa taxaw fii man nag suñ ma ko waxee day xaw a dis ci man ndax ñu bëri xamewuñ ma ak wax ak wax waaye ndigal moom su jugee rek doo man lu dul jafe. sëriñ Modou ak njabootu Baye Cheikh Ahmed Tidiane sëriñ Mahamari ñu ngi lay nuyu bu baax di ñaan bis bi yàlla nañ ko yàgg taxawal yàlla nañ ko yàgg fekke ñu ñi ñëw at yi ci ginnaaw ñëwoon nañ fi ànd ak bay seex yaakaar naa ci at mi nga xam ni moo fi mujj woon yàlla def ci diggante bi tawat am fi boobu ak léegi yaakaar naa gëjoon na fi am keroog bi Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck dugg see fii ci tànt bi ndeysaan yaram daw na moo tax yàlla amul lenn loo xam ne lu mu bind lu fiy sax la wa tilkal ayaamu nu bay bayna naas ki démb bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Seck la woon démb bàyyi Sëriñ Abdourahim tey bàyyi Assane Seck bàyyi Assane Seck yàlla na nga fi yàgg te wér yàgg a gunge njaboot gi ndax lii nga def rey na lool macha allah sëriñ maam Ahmad sëriñ Modou ak njabootu Baye Cheikh ñu ngi lay sant ndax mënoon nga bàyyi Cheikh ma Tidiane Seck jóge fii nga fàtte ko waaye ku gis jotaay bi xam ni jotaay kóllëre la te kóllëre yàlla moo ko dénkaane wa aw awfu bil ahdi innal ahda kaana masulan kon ñu ngi am kontante ak mbégte bu baax kàddu bay Cheikh ma Tidiane sekk nag suñ ko yëkkatee ku ne xam na ni Baye Cheikh kàddoom daawul gudd euh, bu ko defee rekk bay Cheikh Ahmed Tidiane sek kaddom dañ dan barkelo rek ci tanki yi nga xamni dan nako def ci alquranul karim tanki yi nga xamni fu musa ne yëkkati rek ndaysan ñu bari dañi seen xel da ci nek fa tabarakallah bay Cheikh da dan wax ni kef go xamni dafa songi morom kefam ci alquranul karim ñent yon la ñew ñu ne ko ban ak ban ak ban ak ban muni manasikakum yudrikum mi ngi jigéen bi shirkikum ca fàndaak maa salakakum fi saqar ca saari gune ya xam nga maa salakakum fi saqara faagi dafa bokk ci xarafu jar yi lu mel ni min wa ilaa wa an wa ala wa fii wa ruba wal ba wal kaafu laam fii dafa bokk ci arafi jar yi ndax saqa dafa waroon ne dan fii saqari waaye ndax dafa nekk maa laa moo tax ñu wax fii saqar kon manaasikakum mu ni mu ngi laan yudrikum ca jigéen bi sirkikum ca fàndak maasalakakum fi saqar ci saaru gone ya li muy maalaa yan sarif moo tax ñu binaal ko ci fata mu nekk bëri bi xafal maska gi foofu la dëkk waaye nag cosaanam mooy ci suuf gi kon sëriñ maam yow moom lu ñu yëkkati fii ci kàddu rekk suñu xool ak suñu xel yéene nañ la jàmm ju sax dàkk ndax mënoon ngaa woote lii cana ba waaye sa liggéey maam rek moo tax nga indi li fi mbokk yi kenn disul bu fekkoon sa ànd ak say mbokk rafetul woon kon fii doo fa gis kenn waaye canaba kenn disul loolu sa jikko moo la ko may xanaa fi nga xam ni fa la ñuy daanalee suñu kàddu rek ci borom borom xam-xam bu mag bu wax Muhammadun Iqbal dafa am jamono mu taxaw ba mu yàgg mu gis jullit yi seen séparation loolu metti ko lool mu daal wax ni alam baas li ummatikum nabiyun yuwaxidukum ala nahjil wi am wa musxafukum wa qiblatukum jamian manaarun lil uxuwati wassalaam wa fawqal kulli rahmanun rahimun ilahun waxidun rabbul anaam mu ni ndax jullit ñi dañoo gisul ni alam yu baas li ummatikum nabiyun ndax yàlla yabalul ci xeetam wi ab yonente boo xam ni bu ñëwee yuwaxidukum ala nahjil wi am dafay jël jullit ñi boole leen ñu ànd doon benn di yëkkateendoo di daanoondoo yu yuwaxidukum ala nahjil wi am mu ni wa musxafukum yàlla jël téeréem bi nga xam ni moom la gën a fonk ci téere yi nga xam ni tawraat wàccoon na injil wàccoon na zabuur wàccoon na furqaan wàccoon na mu jël alquraan karim teg ko ci yonent bi ni ko nag lii mooy sa lay mooy suma lay ak sa xeet yowmal qiyaam moo tax yonent bi jotal na yónnenteem bi mu ñëwee fexe na ba alquraanul karim boo ñëwee ci yàlla laaj ko lu tax nangoo ko jàng mu ah, damaa amul woon jot mu ne la yaa ngi doon xëy di liggéey di ut loo toggee sa kër wala looy fajee sa soxla loo wax rek wa bi bihi alxujja alquranul karim ci la yàlla taxawalee lay wi nga xam ni ëllëg ku ñëw ci ki ñëw yomal xiyaam yàlla dina wax ni yonent bi lii laa la joxoon yaag sa xeet wi ndax jotaloon nga ko mu ne aha kañ jotal naa ko kon lu tax nanguwoo leen jàng alquran nanguwoo leen koo xam te nanguwoo leen koo jëfee kon jullit bi lu gàtt gàtt gàtt war na war a mën a fexe xam ci wàllu diineem loo xam ni lu koy jariñ la ndax minal mahdi ilal lahdi xam-xam moom fi nga nekkee ndaw ba ni ngay wuy sa borom fa tabarakallahu mu ni yuwaxidukum ala nahjil wi am wa musxafukum wa qiblatukum jamian téere bi leen yàlla jox ci penk bi ah wa qiblatukum jamian mun loolu lépp yàlla def koo def muy balluwaay boo xam ni day day day nekk ci seeni i diggante manaarun lil uxuwati wassalaam wa fawqa al kulli mu ni ginnaaw bi lii jàllee ne rahmaanun rahimun ilahun wahidun rabbul anaam buur bi moom moo tënk nguuram moo yor lépp te ci moom la ñuy dellu kon yàlla na yàlla gën a jubale xol yi yàlla tàppe ñi fi ñëw seen xol yépp yàlla na gën a ànd bi jaahi sayyidil wujud comme dafa gàtt rek ñi ngi yemale foofu di sant di wax kontaan te ak mbégte goo xam ne njabootu Baye Cheikh am nañ ko yàlla nañ ko yàgg fekk ay at yi yàgg yàgg yàgg bi jaay Seydil Wujud xam naa joxoon na ma guro soo xam ne ne woon na suñu accès ñu barkeeloo ko xeeboon ko lool nag ndax wax dëgg yàlla ñi ngeen ko mën a tuddee bari nañ lool waaye su ngeen jëlee kenn ci njabootu Baye Cheikh sargalee ko ko rek loolu fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di jaajëfal ñëpp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 bégee waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee